sukuri li rabbin karimin kaana shakara wartaji min wa fi daarini abkara katabtu sukran lahu ma qad rajawtu bihi kawni sijan wa sakaran wa zakara wajjahtu wajhiya fi sari nabi sanadi lil akrami rafi'il wahhabi shakara rajawtu minhu ta'ala sukru amali wa rafa'a li ma'ani ni'ma ghafara mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp ci turu sëriñ Hamzatu moom sëriñ Souhaïbou jotaay bi li ko waral mooy bis bi nga xamee ne dañu ko baaxoo amal fii muy màggalug xasida yi ci ndigalul Seex Muhammadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba yàlla mottalil ko li mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi lépp ren nag mu am ndigal yoo xam ne da koo joxe ñu bëgg koo sàmmonte ak ni mu ko digle mooy def ko defin woo xam ne ni dana méngoog ni mu ko diglee bis la boo xam ne nii ci dit ñëpp rawatina ahlu xasida ñooy maase ànd daa ko def waaye nag ren li ñuy ñaan ñëpp mooy ndigal li nga xamee ne sëriñ bi joxe na ko ci ñëpp sàmmante ko kem kàttan di sof ci ndigal loolu bi agsi la ci ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo war ñoo topp ginnaawam te fa seen ndigal lu ñu wàcc ci moom ñu jëfe ko nam nam dikkee kon li ci sunu taxawaay mooy nun ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo daan ànd ci ndigalu sëriñ bi di ko taxaw ñu fas yéene ba ndigal sëriñ joxe sàmm sàmmante ak moom def ko nam ko bëggee loolu rek moo ci sunu taxawaay ndax kat ndigal rek mel ne mooy la am njëriñ kon nag nañ fas yéene ba sàmmante ndigal li ni ko sëriñ bi bëgg ñu def ko noonu loolu ñu ngi ciy ñu ngi soññ suñu bopp di soññ mbokki taalibe yëpp. barke Borom Touba. ndigal li bàyyi ko ci Cheikh Ahmadul Muntaxa te ñëw ci sëriñ Amsatu mi nga xam ne mooy jiite liggéey bi ni ko Cheikh Moustapha waxee rek liggéey bi day liggéey bu ñu baaxoo te di ko ànd ak jullit yëpp di ko ànd ak murit yëpp rawatina ahlu xasaayit yëpp ci ñu daa ko def ci weer wii di weeru gàmm muy bis bi ñu tànnoon di ko màggal xasida yi fii ci Jaalibatul Maraaxib ren nag ak ni mbir yi deme tax na sëriñ Muntaxa joxe ndigal ci ñu def ko waaye soppi defin wi mooy xam na ne kuréeli xasida yi dañoo tasaaroo ci biir réew mi ak ci bitim réew te saa buñ ko mosaan jàpp kuréel gu ne da nga fa nga nekk ñëw ñu daje fi yendu fi ba jant bi soo di màggal xasida yi ren nag ndigal li bàyyi ci sëriñ bi mooy kuréel gune ne gox ba nga nekk na ko amale foofee ànd koog ña nga bokkal gox ba ci jàngum alxuraan ak njàngoom xasida ak bernde ba jant bi so loolu mooy ndigal li bàyyikoo ci Cheikh Ahmadul taxa loolu itam moom la sëriñ am sëtu santaane kilifa yi doon waxit moom lañ doon junj moom lañ doon doon e, e, eggaleel noonu yi ca ndigal li boo gisee boo xoolee day mel ni yërmale tàbbi na ci ndax lañ daan def danañ ko defee nañ ko daan defee ca coono yi dana wàññiku kon loolu rek moom lañ doon jottali te xam na ne bis bi jàpp nañ ko mu doon fukki fan ak ñeent ci weeru tubaab yi ñu nekk wara dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmmu di gaawu bi ñu jëm bu dellusee muy gaaw bi mujj ci weeru gàmmu moom lañu jàpp ñu bëgg suñ ca yeggee nag kuréel yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci witim réew yëpp kuréel bu ci ne dajee ci seen daara dajee ci seen barab yenn du jàng alxuraan ak xasaayit ak i bernde ndax Serigne Saliou Mbacké daana wax ne kuy liggéeyal Serigne Touba alxuraan moo ci war a jiitu suñ ko ko ubbee nag ne ci xaside yi nga xam ne moo moom bis bi di ko jàngal Serigne bi di ko sotti sangam ba yonent bi sallallahu alayhi wa gunge ko gàmm ki ba déwén ñu waajalaat bis bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dabba li xayri alxafidu l akramu maa saani wa qaadani almukarramu azka salaami man huwa almuqaddimu ala alladin qaada lahu taq